ami site internet réew mi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ door rek Ousmane Sonko mi nga ne nag dina def ab déclaration ni ki tey ji rek yemoo fukki fan ak ñeent ginnaaw bu ñu ko teree li nga xamante ne nag moom mooy investiture bu mu namoon amal foofu ca stade Amadou Barry bu géej waaye ni ki suba ci samedi ji yemoo fukki fan ak juróom moom jiital Pastef nag fas yéene na jàkkaarloo ni ki tey ji rek ak nationalité sénégalaise yëpp ci ab conférence de presse ñu fàttali leen nag ginnaaw ba gouverneur bu Ndakaaru nag daal di biralee ne kii di Ousmane Sonko mënuñu ko investir ni ki samedi bi bi fukki fan ak juróom fi nga xamante ne moom mooy ca stade Amadou Barry bu Guédiawaye merlo bu futu nag ndawu Pastef yi ñoom nag la ñu xam ne rek mooy kii di Ousmane

département bu Ndakaar nag tere gim leen tere nag du leen tey benn yoon nag ñu daal di def boobu les meeting nag mu leen di neex mu leen di naqari a la force doole mbaam rek dañuy amal mbir mu nu mel ca stade Amadou Barry bu Guédiawaye du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat yeneen yu jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu wi bu leen fàttee abonné ba saale cloche de notification ngir amaat yeneen info